lii amni musuñu mosuñu koon gis confinement ñepp xam nañ ne dem na ba 30 euh, à 20 de la production mondiale dafa arrêté donc mu andi ay problème comme comme yu sévère euh, ci dëkk yépp euh, wax ko ci première partie bi lool motax ma jël décision ma boobu mu bind maintenant buñu ñëw ci Sénégal défi yi nga xamantene moy la moy xaar ci Sénégal ci mbass mi xam nga déjà Sénégal dafa amone euh, euh, euh, parcours bu xaw a ci sept temps yi ñu passé parcours bobu moy nek amon nañu croissance ba nga xamantene non seulement elle était vigoureuse mais régulière Nous ñu waron ko consolider ba mu wessu ans mais fort malheureusement et mbas mi ñëw kase ko gis nga fonds monétaire mu ngi wax ci prévision le taux de croissance au Sénégal est 1.1 en 2020 alors même si je trouve que c'est sévère comme prévision mais quand même quoi qu'on dise l'impact y impact significatif sur ci koom Le secteur d'activité ça va dire que pour défi il faut que nous nous déjà sur le plan de la vision économique Sénégal ci sénégalais que euh, nous sans extérieur en tout cas à plus de 80 sur nos besoins nationaux nous que satisfaire sans pour autant ñu dem di dem extérieur. économie par des sénégalais et pour des sénégalais Lolo, je crois que euh, et ça va passer par une politique industrielle politique industrielle il dafa intégrer intégrer technologie intégrer également une réarticulation euh, carte scolaire bi à carte euh, universitaire pour que sénégalais euh, aient souvent ay formation générique yi nga xamante du am après ci seen également euh, ci wàllu également sociologie nous changer également doxalin Nous euh, avons a que les produit de qualité mooy produits bu à l'extérieur C'est également ay dimension que yi nga xamante ne abordé également ci ci toujours relance il faut que secteur traditionnel économie bi euh, dañ ko je crois que hier le président de la république tenir na benn ben conseil ci relance bi wax ne nañu les secteurs moteurs il s'agit principalement éducation santé xam nga secteur ay secteurs la nga xamante dañuy jouer seen rôle bu baax ci wàllu wàllu koom te ci domaine yooyu Sénégal daf ci am ci ay sax nga parce que ñun dañu souscrire euh, au protocole de Maputo bu wax que agriculture on a 10 de notre budget on est à 8 donc gab on war résorber On doit aussi résorber ci l'organisation du aussi organisation secteur pour que li nga vous organisation paysanne avec ak ministère acteurs yi une organisation optimale pour nous permettre de migrer d'une agriculture paysanne à une agriculture industrielle loolu moins tax par exemple 700 à 600 000 tonnes nous avons am ci euh, gap ci wàllu ceeb ñu mën ko résoudre loolu moo également ci fruits ak légumes ak yu bëri yi nga xamante dañ koy jëndi à l'étranger ñu mën ko defar fii consommer ko fii te loolu day delluwaat ci Sénégalais deuxième chapitre bi bu ma tuddee euh, la transformation économique à l'heure du déconfinement noonu le chapitre bi tudd chapitre boobu wax naa ci secteurs yi nga xamante ne dañ leen war booster xool la part du secteur privé national c'est dominé principalement par des entreprises étrangères Lolo état bi trouver des solutions non seulement am ay mécanismes incitatifs ci la fiscalité et l'accès au financement mais également nous demandons une innovation qui code des marchés pour permettre à ce que notre secteur privé national puisse participer pleinement au financement de l'économie. Nous aussi toujours ci pousser secteur privé national bi ñu participer ce qu'on appelle les partenariats publics privés. aujourd'hui les partenariats partenariat public privé yu bëri étranger étrangers. un problème bi FHM, am état du Sénégal qui gestion autour de l'APH. bi le PPP la état du Sénégal le président Macky Sall pris jël décision début juin 2020 pour wax ne Eiffage à ce que ñu le contrat parce que sénégalais yi li ñu autour de autoroute alors donc yu mel euh, euh, traité Maintenant, le maintenant secteur informel en tant que tel mënoo wax relance te waxoo secteur informel waxoo les PME PMI waxoo également le secteur de l'artisanat. D'accord d' wax également l'administration administration euh, ci seen positionnement ni ñu taxawee ay pàcc secteur informel lu ci am solo la ndax Sénégal 9 salariés sur 10 ñu dans le secteur informel secteur Bobo première activité au secteur bi c'est le commerce donc environnement commercial bi. Euh, dañ ko war a revigorer assainir ko ba mu yokk contribution ci wàllu création wu richesse Sénégal loolu aussi mu ngi passé ci formalisation du secteur bi par différents mécanismes parce que secteur informel tey euh, li ko gàllankoor bari parce que secteur informel souvent petite activité la ba nga l'horizon des profits c'est uniquement pour euh, la dépense waaw la dépense quotidienne war nañu weesu foofu et loolu pour moi, am il faut que ñu dooleel déjà euh, capital humain bi nga xamantene moy acteur yi ci liguey acteur yi ci liguey seen niveau édu euh, formation ak niveau d'instruction instruction euh, liiwul élevé wul c'est-à-dire bu fekkene ni ne nit ki jàngaluñu ko ba mu dem ba am niveau brevet ak yoyu mën lire mën a compter mën comprendre yenn yu simple nan yenn yan jumtukaay la wara a utiliser pour accélérer activité am loolu day tax du jël ben initiative donc lolu day am aussi ay effet d' entraînement ci économie donc li ñu capital humain mooy formation bi instruction bi ak yooyu war nañu ko dooleel ci secteur informel parce que boo xoolee ñu ci bari si ñoom niveau élémentaire la ñu am moo yu bari duñ ko mën jël comme initiative yu bari également duñ ko mën a duñ ko mën a accélérer. jafe-jafe yi man li ma ko xalaatee ci capital humain bi c'est-à-dire que rapport bi ñu am ak formation ak jàng loolu posé na problème ci sama réflexion c'est-à-dire que tey nous mënuñu Le capital humain bi daal gis nañ nga insister. waaw insister parce que je euh, l'ai plusieurs fois Le livre bi bu résumé tey théoriser euh, le capital humain Le capital humain bi dafa nekk lu am solo ndax gis nga développé wu man recherche doctorale maa euh, une partie des pays de l'Asie du Sud-Est Les pays qui sont caractérisés caractériser bokk capital humain si vous avez la Corée du Sud. Euh, dëkk yi bépp dañ ko robotiser dañ ko robotiser tan robot yooyu ñi koy defar ay xale yu ndaw lañu mais dañ leen jàngal à bas âge yar leen ci tàngat leen ci ba lu situation compliquée compliquée mën nañ ko modéliser jënd benn appareil bu koy faj gis nga ci Covid 19 bi defar nañu ay application si smartphone ya nga xamante ne ci sa smartphone sa téléphone boo rombee ko am Covid 19 daf la koy wax xam nga loolu loolu jàng moo man loolu donc si ñun tey boo xoolee euh, cure-dent sax wala aiguille sax des problèmes. suñu dëkk poser problème alors l'efficacité euh, efficacité l'économie, économie bu Sénégal fi ñu mesurer moy, ci capacité bi mu pour créer emploi bu mënul créer emploi l'économie est efficace et donc pour nous un créer emploi il faut que nous am euh, non seulement en bonne santé mais qui sont bien formés et qui sont bien outillés